ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi nga xam ne yéen a ngi teewlu ci Hayaat TV di leen dalalaat ci xibaar eh, lu soxal dossier Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang procès bi nga xam ne daal nañ koy eh, daal di eh, indiwaat ginnaaw ba nga xam ne kii di Mame Mbaye Niang dinay dugal li nga xam si ne moo di appel waaye itam ku nekk xam na ne ki nga xam ne moom moo war a juger boobu le procès nekk kat ki nga xam ne. Euh, moom moo di euh, procureur Amady Diouf bi nga xam ne ku nekk xam na ne moom ennemi Ousmane Sonko lañ ko mën a jàppee ndax euh, ndaxte kat bu ñu fàttalikoo ci dossier Ousmane Sonko ak Adji moom moo demandé woon pour ñu daal di renvoyer li nga xam ne moom moo di bii le dossier chambre bi nga xam ne moom moo ci daal di takkoon repos itam moom moo mujjoon yor boobee le tey jii nag bu fekkente ne dafa war a juger kii di Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ku nekk xam na ne. Eh, kii di Amady Diouf yàgg naa dugg ci ay mbir yoo xamante ne sii ne méngoowut ak eh, àtte bu maandu tey jii bu fekkente ne eh, moom moo war a jugé kii di Ousmane Sonko ñu bëree bëri ci patriote yi amuñ ci yaakaar benn yoon. waaye itam jàpp nañ ne boobee la mbir xeex mooy li nga xam ne moom moo koy mottali waaye itam lii di justice dafa daal di jeng fare ci li nga xam ne moo di pouvoir bi te it képp koo xam ne. mi ngi jugé Ousmane Sonko Macky Sall moo ko fi teg wax itam Euh, Macky Sall lay rendre compte loolu nag waral na ñii di patriote yi euh, ñu bëree bëri daal di jàpp ne dañoo war a daal di jug daal di taxaw daal di def euh, seen liggéey ni nga xam ne noonu la waree bañ a bàyyi kii di Ousmane sunko ñu di ko yóbbu ci yoon ak di dem ak ñëw waaye itam tardeel ko ñu bëree bëri it daal lay xam ne kat li ci mën a tukkee ci boobu la décision waaye itam dara mënu cee jóge lu dul yàq lii di Ousmane sunko ba du bokk ci élection présidentielle yu 2024 Euh, ndaxte kat loolu mooy li leen tax a jóg ndax kat li nga xam si ne euh, ñi ngi koy doxalee ak di euh, profito procédure yi loolu rek lañ ci jublu ak kat fexe ko daan daan boo xam ne du bokku ci li nga xam ne moo di élection présidentielle yi 2024 yi loolu nag moom mooy objectif ñi nga xam ne ñoom ñoo di gouvernement bi loolee waral nag ñii di euh, euh, patriote yi di xamle ne euh, na ñëpp jóg daal di takku bañ a bàyyi kii di Ousmane ko lii di justice kat di doxalee nu ko neex ngir kat daan ko li nga xam ne moom lañ suwa waaye itam kii di président Macky Sall bëgg ko looloo waral kat ñu daal di def appel pour kat appel bi nga xam ne ñi ngi koy def kii di Amady Diouf moo ko war a jugé loolu kat day mel ne. Eh, kii di président Macky Sall daal nay waajaloon loolu moo waraloon mu daal def ak eh, soppite ci li nga xam si ne eh, moom moo di lii di justice bi. loolu nag nekk na mbir moo xamante ne si ne mbir mu doya doya ku waar la wala mbokk yi ñu leen jox dig dajee ci yeneen xibaar leen wax na ngeen abonné te activer cloche de notification bi pour bépp vidéo bu ñu dugal ngeen bokk ñu koy njëkk a jot.